waaw euh, sama tànk du dara lu dul accompagner les marchands ambulants seen président ngi taxaw muy ay ndaw yoo xam ne vraiment dañ leen war a jàppale yokk doole donc bu ma ñëwee aussi ñu waxtaan donc ma ne ko dinaa ñëw ñu participer rek jël benn jour def ay ndogu vraiment jaamu ci yàlla accompagner jeunes yi parce que ce sont des jeunes à encourager waaw te li ñu gis parcelle moom xaw na metti parce que chaque jour rek ñu ngi leen di bundu xatal chaque jour ñu leen di créer alors que du loolu li ñuy wut yëpp seen njaboot lañ koy yóbbu donc il faut les encadrer les assister mais aussi ñu renforcer leen donc loolu mooy tànk yi te on a un partenariat bu ñu sune pour ñoom marchands ambulants yi pour gën leen soutenir. mais secret bi rek mooy def politique dans le vrai sens du mot essence ou quintessence politique mooy dimbali askan bi jaamu yàlla. loolu lañ mës a def depuis 2000 2008 2012 2008 ba léegi ñu ngi loolu di jàppale askan wi on fekk que du social parce gëm nañ ne loolu mooy politique politique da ngay amal njariñ sa askan looloo tax nag nga gis fi li nga fi gis mais nag ak sant la rek sant yàlla tey jii jeunes yi ma gën a sas nga xam ne lu ma doon def benn tey dinaa ko yokk parce que nag euh, koo yéegoo rek mu safoo la daal je suis candidat à la mairie incha allah et gëm nañ ne incha allah liggéey bi ñu def parcelle ak parcelle ni ñu bëggee ñu jàppale leen dinañ jël mairie allah bu boobaa nag la ñuy xam ne lépp dëgg la bu boobaa la ñuy xam ne ne vraiment dinañ jëlee parcelle ci banlieue yóbbu ko ci banlieue parce que tey parcelle dafa nekk ci banlieue bu reculé dañoo gën a dellu ginnaaw mais gëm na ne tey avec la génération originale avec ñi nga xam ne ñoo nekk parcelle les dignes fils des parcelles dinañ jël parcelle liggéey parcelle ngir l'intérêt général bu boobaa nag ñi nga xam ne mooy marchand ambulant yi bu boobaa dinañ gis vraiment encadrement boo xam ne ne leen ñoom ñu épanouir parce que nag ñoom li ñuy def a marché yi ñooñu ñoo gën a yor commune bi ci wàllu recette donc war nañ ci gis seen bu baax a waaw li may lancer appel mooy jigéen ñi góor ñi surtout la jeunesse les femmes bu leen nangooti gars yi di leen nax bu leen nang gisoo leen depuis booba élection yi passé kenn gisatu leen su élection jotee ñu indi seen i xartum seen i t-shirt seen i 2000 francs seen i sandwich nax leen ngeen daw ba sonn bu nu amee lu ñu am kenn du leen gis il faut que tey ñu ngi conscientiser lu ñu mën macha allah on a aujourd'hui une jeunesse consciente on a des femmes ñu ngi leen di sensibiliser bu leen nangooti ñu leen di nax jël leen ñii gën ci gox bi ñi xam ne am na yéen ci gox bi teg leen ci gox bi ñu liggéey gox bi parce que parcelle vraiment secteur boo laal day métti foo dem ci parcelle voilà tout le monde souffre donc loolooy kàddu gi nañu def politique dans le vrai sens du terme mais bu ñu nangooti kenn du nax nga xam ne dañuy jël koo xam ne jiital ko bu amee lu mu am kenn du leen gisati maire bi fi ne tey mu ngi yeewoo Almadies depuis des années donc nag loolu la ñuy xeex pour ñu dimbali parcelle te yàlla rek a tax. waaw bu ñuy wax Mamadou Guèye sincèrement par dañuy wax nit boo xam ne xol dafa yaatu parce que Mamadou Guèye ci lépp la nga xam ne mën nañ ko réaliser ci li mën nañu wax ci moom. ci ki nga xam ne tey dafa soxla mairie ba bu njëkk ñu bëri bu ñu mosaan a wax mairie dañu doon wax ne jàppale ma ba pare su ma jekkoo jàppale la mais Mamadou Gueye tey mën nañu wax ne dafa indi ay bilan pour commencer avant de demander mairie ba te mairie ba ñama ma jiitu sax te àndoon ak ñoom ci ngor démb ba tey ma ñoo fekk si leen fii sincèrement parle mën nañ ko seede ndax ñoom seen bopp ñoo taxaw ne ko yow mii tey yaa war a mën a nekk ndaw euh, parcelle bi war a jël mairie situation d'urgence bu amee du ñu am fu ñuy évacuer ba ñu doon jël ay clando di ci di ci di ci évacuer des femmes yoo xam dañu nekk ci situation d'accouchement ñu ciy dem di ci yóbbul ab ndo ab benn benn benn soxna malheureusement p à son âme elle est ñu daal di jël euh, boobu situation ñu exposé ko ci seen si si benn si seen intercommission buñ fa nekkee di ci wax alors mu am deux responsables yoo xam ne dañu soumettre sa problème pour budget ba ñu mën ko ci du ñu mën ñu ci ñu mën ci boole benn ambulance mais comme dañoo jaaxle mu taxaw il a pris effectivement moom personnellement il s'est engagé volontairement pour may ab maam Abdou benn ambulance. ambulance ba muy ñëw metti na. parce que am nañu ay vidéo yi nga xamante ne ay euh, ay infirmière ñooy wax ne ñoom duñ doon ragal euh, benn patient piqué crise jabet ñu ko war a évacuer dañ doon tiit Dieu merci ba ñu am jëmm ju xeebu ji bu mu ko yëgee dafa dem ba Paris les Dauphins jëndal ñu ñaari ambulance médicaliser ambulance yomb na mais médicaliser ngay def première soins yi avant ngaa àgg principal wala Dantec wala Malka Sankhare loolu lañu defaral. mais nag bu nit dogoo yàlla fekk si la il a eu à réaliser deux ambulances mu indi ko ñu tegal ko ci nag ay conditions yu tar mais malgré tout mu chargé wu ko pendant six mois d'affilée par jour trente mille francs par ambulance parce que fi ñu ko parqué moo tax il s'est battu ba génne ambulance bi indi ñaari ambulance yëpp indi ko. ba pare ñëw récupérer caabi jox ko Moussa Sy ne ko yow yaa koy inauguré une personne humble effacée que l'on ne voit pas sincèrement parler complètement ci biir nit ñi la la la mais une force tranquille moo tax ma koy ne Guèye l'original la force tranquille alors ñu jóge ci loolu ñu ëlbatiku mu daal di def benn investissement uniquement pour aider et c'était pas du du du du première édition 1751 enfants circoncis ak charge yëpp yu mu ci jël médical habillement nourriture ba ci sax ordonnance yi nga xam ne moom lañ doon fayee moom da koy jël ko en charge ñu dem pour les femmes mun naa ci jël sama sœur bu may xam ne moom laay tàmm di ko wax ne la Lionne des Parcelles Assainies Awa Kane. may ànd ak Mamadou Gueye nag depuis 2008 ba 2012 ñu ànd di politique muy def nag politique sociale di ci liggéey bi ñu àndee ba tey te dara ñaawul ndax chaque jour rek mi ngi xool soxla waa parcelle surtout jigéen ñi di ci dox di ci wax moo tax ñu sawar di ànd ak moom chaque jour rek ci liggéeyam. te di ko rafetlu chaque jour di ko ñaanal yàlla tamit yéene bi mu am ci parcelle yàlla jàppale ko ba ñu egg ci ndax xam naa buñ ci yeggee rek incha allah parcelle dina am changement bu rëy. liñ ci mën a wax moom bari na ndax xam naa kon fii ba suba dinañ ci nekk ndax ci quartier bi ñu nekk rek mi ngi fi am euh, groupement boo xam ni yaakaar bokk la tudd suñu mag euh, Dior Sow jiite ko defe naa ñoom la fi njëkk a jàppale ci poulailler bu mag bu mu leen defal jigéen ñi di ci liggéey di ci jariñu man mii di wax ak yow GIE bi ma yoroon 2012 laa commencé liggéey ak moom suñu GIE mu liggéey ak ñun organiser ñu ndax boobu dañ daan natt rek tasaaroo dem mu toog waxtaan ak ñun nañu da ngeen di ut papier nga xam ni bu leneen ñëwee loo xam ni ci nguur wala lu mu mën a doon du leen bett ndax booy liggéey war nga am papier ñu nit ñu topp ay conseil am dem ut ko organiser wu boobu chaque weer presque 30 000 la euh, chaque natt dimanche 30 mille lañ daan jox ku teggi waaye tey macha allah chaque natt ñu ngi joxe dimanche bu jot bu ñu teggee dinañ jox femme bi 300000 te lool ku ko yóbbu sa kër dina la mën a jariñ taxul nag mu bàyyi loxoom si ñun bu feet jotee korite moo si mën tabax si moo si mën ndax li mu mën si wërsëgam dina ko def jënd ay kit ay soble ay pommiteer laaj ñun ñi suñu loxo lay teg boobu xaalis organiser ko ba ku nekk loo si am lu mu tuuti tuuti nga mën koo déggal sa kër dimbalee ko ki am yéene boobu nag di la ko defal te nekkul dara ndax ñun ñi ngi koy frekante yàgg nañ di nekk ak moom wërsëgam lay xañ boppam jox ko doomu aadama yi ndax léeg-léeg këram gi boo fi ñëwee heure boo fi ñëwee yaa ngi fi fekk nit te ku nekk yaakaar moo la fi indi te lu mu metti metti dina ci def dooleem def ci li mu mën ak li mu mënul même bu amul dina la toog loo dalal la saxel te loolu rek la ñuy doye ci njiit njiit moom du la doo ko lekk doo ko naan njariñ rek nga koy doye te moom lépp lu mu war a def ak nit defe naa parcelle buñ duggoon ci kër yëpp laaj ku mu duggul ci këram it boo kontee ñaari kër ñetteelu kër ba dina fa dugg wërsëgam te mi ngi koy def boobu ba léegi taayu li mu bëgg nag mooy dem ci mairie parcelle bi defe naa moom signature rek comme ni ko sama grand de waxee moo ci des signature bu moo xam ni ay relation mën a continuer moo ko dese ci mairie parcelle waaye lépp lu mu war a def mi ngi koy def kon nag dañ ko ciy ñaanal loolu ko yàlla di liggéeyloo yàlla bu si yaakaar yaakaar gi ci parcelle am yàlla bu leen ci yàlla tas li yaakaar jàppale ko ba mu egg seeg jàmm bu boobaa daal dina doon njariñ ci loolu may remercier nag équipe bu génération originale yëpp ñi ñuy àndal di liggéey staff bi ndax dañoo ànd ak ay mag ànd ak ay xale ànd ak suñuy grand ñu ñuy jàppale waaye nag kenn du suñu rakk ji muy awakan da ci sonn di ci def dooleem di ci def lépp ndax bëgg rek mu baax kon foog bu dara ñëwee tamit ñu mën ko gërëm ndax ñëpp mënuñu wax loolu daal moo doon suñuy kàddu ñuy kontaan nag di kontaan seen liggéey yéen yàlla na leen yàlla jàppale. Mamadou Gueye du député député yaa ngi parcelle député département de Dakar lañu nag mais parcelle la ñu yeewoo ñu ngi fi ay ministre ñu ngi fi ñu ngi fi doon yeewoo mais fii lañu dëkk fii la ñu am seen 15 sur 10 comme ni ko sunu baay amee fii moo Mamadou duggee fii la am 15 sur 10 am Parcelles Assainies du député du ministre du DG du PCA. mais ñun mooy suñuy PCA mooy suñuy mooy suñu ministre mooy suñu DG mooy suñu député ndax ku sa bët xonq fii ngay ñëw euh, yaakaar naa seen kilifa yi bokk ci Equivox TV euh, ñëw nañ fii mais moom bu mu fi ñëwee balaa jóg moom boo leen ko laajee dina leen ko wax am na ki nga xamante ne baayam daa feebar bëgg nañ ko évacuer yore ñu luñ koy évacuer fii la ñu ñëw moo joxe luñ koy ko loolu loolooy maire Mamadou Gueye maire la bu mu jógee foofu ci ambulance yi maam Abdou la ko yóbbu ah. te bu muy euh, bu ñuy recevoir don bi maire ba ngi taxaw sous préfet mi ngi taxaw commissaire a ngi taxaw yenn ba du Diouf mi ngi taxaw c'est son grand frère mi ngi taxaw wax lu amul seede neexul te tubaab lu mu bëgg maa fekke ñoom fekkee nañu jóge na fa aussi indil ñu ay donc ay lits d'hôpitaux de chaise en chromé ay chaise roulante indil nañu ker mu ko indee le maire Moussa Sy dafa oo experts yi nañu expertiser bagages yi évaluer ko ça tournait aux environs de douze millions et poussière mais ñu ay consultation gratuite en ophtalmologie bu mu ko defee fii euh, maison parcelloise xool nañ fa lu mat mille quinze personnes mais fa six cent cinquante verres am na ñu mu jaaxal dañuy dugg si réseau yi sax di wax ne non c'est pas possible or que lu am la les faits sont am na ay seede ku ñëw nag ñu génne la seede yi won la archive yi nga documenté wu si sax pour ëllëg yow booy wax moo duggee def na ko fi ku volet santé éducation ñun a Thiaw lañu jàngee ñun bokk nañ suñu Ibrahima Thiaw bii nekk interview Parcelles Assainies avant CM 19 di fi ñëw mais dem nañ ba am ay problème table banc gars yi di jël ay table banc de classe en classe ba mu ko gisee teg ci bëtam dafa ne surveillant général bi naa leen ay table banc mais dafa ree mais xamuloon la mu doon ree après la comprendre xam ne kii il est le maire idéal des Parcelles Assainies loolu la ñu xaar ci maire mu ñëw may ñu deux cent soixante cinq table banc plus dix bureaux direct euh, dix bureaux enseignants kooku c' est de l' argent mine de rien tey kooku boo ko évalué woon ça tournait aux environs de huit millions neuf millions kon kooku bëgg na gars yi faju bëgg na gars yi jàng kooku il est maire des maire li ñuy damay toog léeg-léeg ñu ne le grand maire Moussa Sy mais le petit maire le le grand maire c'est Mamadou Gueye l'original from Hard Town Parcelles Assainies Noflaye Interstate donc kooku bëgg na parcelle naat bëgg na parcelle neex te jii suñu stade bii ñu ngi koy bàqoo di wax stade municipal des Parcelles Assainies buñ ko tuddee Mamadou Gueye tax conseil municipal la toog xeex ak ñoom ñu ne ñaata place mille cinq cent place mu xeex ak ñoom direct tour si conseil municipal bi Macky Sall dégg ko yàlla def mu demoon euh, euh, Pikine euh, conseil des ministres décentralisé dégg coowu Parcelles Assainies bi fekk moom ñu ngi ko téye woon police ñoom bay Ndiaye sax ñoo di def jeen intervention yi ba commissaire bàyyi leen bu ko président déggee si renseignements généraux yi ndeysaan mu ne Amadou Ba yokkal si budget Sénégal un milliard cent pour estatu parcelle bi grâce à Mamadou Gueye l'original kooku nañ ko ko sante kii ko ko def maire wallaay lazim parcelle démarré mm-hmm. day décollé parce que am na carnet d'adresse bu baax parce que baayam kilifa la woon dugal ko ci école yi baax muy cours Sainte Marie de Anne mu jàngee fa ba am fa teraangaam am carnet d'adresse bu baax tey jii kii ku ko def maire yàlla xam na ne euh, coopération décentralisée bu am solo dina am fii Parcelles Assainies entre yeneen ville ci Europe wala Asie mën na ko am na ko am na expérience bi ndax mbas mee tax ndax la mu indil waa parcelle yàlla sama boroom xam ne bu ñu ubbee frontière ñu xam ne Mamadou Gueye bokku ak ñi fi ne ki nga mën a ki koy jéem la moom da koo mën ñeen ñi dañ koy jéem te mënuñu la preuve bu ñu demee si côté économique keroog bu ñu mees jigéen mi sargal fii joxuñu kenn paas fii dafa fees del mu bàyyi ba gars yi sargal ba ay vingt et une heures yi tiim ko journaliste yi taxaw laaj ko mais mun leen naa dugal fii cent mille cent millions pour jigéen ñi premier tranche bi cinquante million laa koy def sargalee ko sumay jigéen mais ba mu ko dégg ba mu ko waxee ba tey jii parce que la ñu toj ganaar bu tëb sax na damay financé mais dañu xam ne 17 pour cent ci remboursement ak dix pour cent bokkul kii mooy 10 kii damay dégg sax benn waay jox ma may lu baas 10 mais kii mooy Mamadou Gueye l'original 10 parce que foo dem ci banque yi nag quoi qu'on puisse surtout réseau yu ndaw yi ñooñu tey intérêt bi c'est 17 pour cent yeneen banques yi foo si dem 17 pour cent la mais moom baaxaayam ak euh, ñu encadré foofu bu ñu gisee liggéeyam dañ ko ne yow jigéen yi nga àndal 60 GIE ku mën a yor ponkal nga kon yow daañu def tout xool ñoom nu ñuy def ak seen euh, PCA yi ba wax ak ñoom ba ñu mun def euh, remboursement bi 10 pour cent maanaam bu la joxe un million nga fay un million cent au lieu un million cent soixante dix mille man am naa sama jigéen ji nga xamante ne diñ ko war a financer mais diñ ko ne. remboursement bi 17 pour cent la te kii moom 10 pour cent la ñu mais bu ñu wooree dinañu xam ne ku ko mën la ak kay jëm.